ñu def diagnostic yi ñu ko defee ba pare finalement tey ñu ñëw pour lancer les travaux bon donc actuellement ñu ngi toll ci commencer def levé topographe bi pour xool les points de pente yeeg yooyu pour xool nan la ñuy liggéeyee ba nga xam ni suñu ko defee automatiquement problème bi régler une bonne fois. mu ne xam na ni zone Noto bi dafa bari xeer bon moo tax liggéey bi du mën a yomb du mën a gaaw mais incha allah li ñu bëgg daal euh, fii ak weer. Inshallah, allah bëgg nañu liggéey bi yëpp dinañ pare parce que yaakaar naa trois villages la pour Diack euh, Ngolaar village Ngolaar ak euh, Kër Soogi bon donc village Ngolaar ñu ngi ko war a raccorder ci au niveau di Mousnaax bon Mousnaax lañ koy jëlee bon bu ko defee automatiquement bu bi nga xam ni Kër Soogi la moom à partir de la Sangé pour Diack kenn ku ne xam na ni ak population bi fa nekk mënatuñu xaar lu dul rek am ndox. depuis ñaari at ngi ni pour jaak dafa am problème ndox problème ndox jafé jafé xam ngeen ndox lu mu représenter euh bu démé ba ñak ci biir dëkk rek wa dëkk bi dañuy nekk ci ñakare nekk ci euh coono bu ñu gisee tay ministre Aline Sar envoyé benn équipe sur sur place pour euh, mun a démarrer travaux yi dañ ci mëna contane rek dañ doon tak ay charrette dem ci dëkk yu ñu wër fa wut ndox vraiment bo démé ci teen yi ngay rot qualité ndox mi vraiment mu xawa a doy waar parce que xam ngeen dëkk bi ben benn teen rek mo fonctionnel ten bobu des fois nit ñi dañ ko doon jëkënte à tel enseigne que bo tardé rek da ngay mëna takk sa saret dem ci village environ pour wuti ndox foofu loolu nag juróon na vraiment ay euh, ay ay njeexital yo xamne vraiment kiiwul ci askan bi parce que ay feebar ci walu xele yi même ci walu certain mag yi da nga doon gis ñi di sëqat ñi am euh, comment dirais-je infection respiratoire te yaakaar loolu yëpp ñekk ndox bee ko indi lool. travaux yi daa nekk benn euh, ay travaux yoo xam ne daa bokk. ay dëkk muy dëkk Poudjak dëkk Ngolaar ak dëkk Kër Soogi. Poudjak mu ngi war a nekk vingt cinq millions Ngolaar war a nekk million millions Kër Soogi war a nekk sept millions muy quarante sept millions. Poudjak mii ñu nekk fii tey nag travaux d'adduction la. ci travaux d'érection yooyu monsieur le maire ne nañ wutal ay borne fontaine yoo xam dañ ko yóbbu ci dëkk ba pour mu ma gën a jege population bi mais aussi jigéen ñi am luñ ko ñaanoon muy ab tool mu ne aussi suñu defee connexion ndox mi ba pare nañ xëcc ndox moomu yóbbu ko ci ab tool boo xam ne ñoom ñoo koy waxtaan nañ ci chef de village comme ça ndox mi mën a dem ba foofu jigéen ñi am lu ñu jàpp kon tey jii pour am ndox la d'accord mais aussi pour sak aussi benn buntu boo xam ne jigéen ji dañ ci mën a yëngu. population bi du ñu naan pour Diack rek lay jëriñ parce que suñu nee pour Diack yeneen yëpp da cee aju xam nga pour Diack mooy le troisième ou sinon le deuxième plus grand village de la commune de noto Diobass. askanu pour Diack son lool Diobass gëmoon ne monsieur le maire dina ci taxaw ndax bi problème bi amee ba tey defe naa noppaluwul conseil mi noppaluwuñu waa pour Diack aussi noppaluwuñu. tey jii nag mu mel ne am na bunt boo xam ne feeñ na ñu am ci mbégte